yo what's up what's up salaam jàmm ku mbedd niggas baa ngi nuyoo leemaa ku mooy ci wol waa dégg ko fay mais chef booy ji ji jiri der ay kay messi ay kay takk ay kay mu ne fu ne sama gars yi ko gisee noonu la ngaa ko blend la dalal si seen Sama Game votre émission Galsen Sama Game Mister Ngaaka King Baba Ndaw waaw ñu ngi siyaar waaw ñu ngi lay bu baax a baax di siyaare suñu mbokk internet yi suivre peut-être la euh, interview bi yëpp fu waaye nekk ngaa ko benn ñu lay siyaar di leen bu baax a baax. Grand Théâtre bokk na ci salle yu gën rëy bu fekkul nekkul salle bu gën a rëy ci Sénégal bokk na ci salle yi gën rëy ci Sénégal mm-hmm. nit buy évoluer tey ci musique peut-être ñaan nga yàlla mm-hmm. am fa bis mm-hmm. et c'est pas la première fois ñun ñu fay tëgg comme on dit xam nañ ko moom tamit xam nañu. nekkul événement bu tuuti nekkul aussi benn salle bu ndaw mm-hmm. mais gëm nañ ni am nañ peut-être public boo xamante ni mën na ñëw feesal grand théâtre ñu gëm ne ñun tamit état artiste am nañ contenu boo xamante ni mm-hmm. buñ ko tegee biir grand théâtre képp koo xam ne ñëw nga fekk si événement bi wala fekk ci nga show bi di nga kontaan ci ñun lañ lay proposer mm-hmm. et comme on dit c'est pas donné à tout monde bu fekkee ñi ngi am chaque année possibilité di fa tëgg di gis ni tamit public bi ñu ngi koy bëgg mm. dañuy continuer di ko def dañuy continuer di ko def di ko defaat di ko defaat ba ba ba ba keroog ñi xam ne mënatuñ ñu ne bàyyi nañ waaw am na solo le treize nga ko jàpp ñu gis sa euh, naataangoo yi nga bokkal ci game bi ñu nga bokkal génération ñi ñëpp ñu si bëri jàpp le vingt huit yow nga jàpp le treize forna ci beewu bëy gars yi ne ngaa ko dafa daw combat le vingt huit bi lu tax jëlut moom it le vingt huit comme ni ko gars yi daw non en fait je pense que bi ñuy jël grand théâtre 13 décembre un mois après arène nationale la tu dañu pare arène nationale ñu ne dañuy dem grand théâtre parce que bëri nañu buggoon ñëw arène nationale mhm. doon xalaat peut-être euh, manque de sécurité wala stade bi nu mu enclavé wu wala et cetera et cetera te ku xam ngaa ko bu xam ne am naa chance am ay public peut-être je dirais pas sax responsable mais ay public gu mag ay public gu maire ay public gu pas yoo xamante ni peut-être bëgg nañ assister ci événement Ngaaka Blindé peut-être arène nationale nekkul le lieu adéquat pour que ñoom ñu ñëw ñu ne dañuy dem Grand pour en fait ñi nga xam ne dañuy raté arène nationale ñu am benn chance pour rattraper aussi événement bi donc bu ñuy jël Grand Théâtre le 13 décembre je pense que c'était juste trois semaine xaw ma un mois après Grand Théâtre et date bi tamit la date n'est pas venue par genre je peux dire que euh, par hasard parce que le 13 décembre 2000 2018 noonu la non le 13 décembre 2018 mhm. lañ ma libéré mhm. tey le 13 décembre 2019 mhm. ñu ne dañuy feete libération boobu nga xamante ni sénégalais yëpp ko doon ñaan sénégalais yëpp ko doon xeex et bis boobu ba mu amee yaakaar naa ne sénégalais yëpp ci kontaan ñu ne nag du ñu jóg tant que ñu ngi koy mën di màggal bis boobu comme on di ndax li tax sénégalais yi doon ñaan wala li tax sénégale yi doon jooy peut-être mooy ngaa xam ne ngaaxa Blindé bi fi doon nekk di leen bëggal wala ngaaxa bu génnee di continuer di leen bëggal bis boobu nag ñu génn muy le 13 décembre 2018 nekkoon mbégte ci ñoom 13 décembre 2019 day continuer di nekk mbégte ci ñoom 2020 ba 2021 ba 2050 dañuy continuer garder date boobu parce que ça a une date boo xam ne duñ ko mës a fàtte. am na solo ñu gis moroom yi ba tey seen génération ñu ngi génnee album ku ci mel ni One Lyrical Deep dund gis ngaaxa ba mu génnee album teg jéego. ba léegi génne waatagul album donte amoon na ay jafe-jafe si diggante bi mais bi nga génnee gars yi fooga ni boo génnee album nga leen di tegal nga génn dina jam ay single. waaw je pense sax jéego du album jéego pré album la. Euh, ngaa ko sama carrière ba léegi mosuma def album. Mm-hmm. et du du du je veux dire que ndam euh, kuy ndamoo ñaaka def album. Mm-hmm. même su fekkee defuma album. Mm-hmm. je pense que amul fu artiste. bu Sénégal bu génn album wala bu toll ci benn niveau bi te ngaa xam ne toll fa amul benn salle boo xamante ni artiste mi ngi koy feesal que ça soit rab wala mbalax maa ngi ciy sant yàlla bu baax te ngaa xam ne feesalu ko amul. et je veux dire que jusque du challenge bi du def album. génne ko tey su ma buggoon suba suba suba ma génne album suba mun naa génne album am naa contenu bi am naa son yi am naa titre yi am naa équipe bi mhm. mais du loolu laa soxla bëgg naa tey. su ma demee bay génne album ma ni kat Ngaaka bi nga xamante ni genre defagul album tey am aura bi mu am ci marché hip hop sénégalais am marché aura bi mu am ci tey ci marché musique sénégalaise mm-hmm. dama naan su may demee bay génne album lan la album bi di yokkaat ci sama carrière mm. ban avantage la may album bi di indilaat quoi mm. je sais pas si tu comprends pas cest à bugguma def ñëw def album après continuer waat nekk ci même lancé lancé bi ma nekkoon mm. continuer nekk même ngaa xam leen bu ma nekkoon bëgg naa su demee ba sama album di génn mu leer ma nekk ni dinañ ci liggéey liggéey boo xamante ni bu album bi génnee waxuma ngaa ko blende en personne quoi mais hip hop Sénégal dinañ ko gis ci beneen niveau dinañ ko gis ci beneen étape et yàqamtiwuma ko je pense que ak équipe bi may liggéeyal la paxe nañ sur sur tous les plans et incha allah je pense le 13 décembre bii ñu jëm. mooy nekk date bi nga xamante ni war nañu annoncé c'est à la le l'album de Ngaaka Blindé. gis naa c'est ça gram nga annoncé ni double album ngay génnee booy am nga fit. double album booy. des fois sax damay fàtte maa lay jox ay code ndekete yow yaay xam luy xew si dëkk bi. waaw waaw effectivement. Mhm. effectivement lancé nañ que ni double album bi c'est en c'est pour deux mille vingt. Mhm. et incha allah rabi dinañ def double album pour deux mille vingt. Mhm. te double album boobu comme li may wax léegi léeg ci sama début wax. loolu laa doon xaar. am loo xamante ni bis bu ma ko defee waxuma. su fekkee ni man naa man naa su ma naree génne album damay continuer nekk même Ngaaka Blindé bu ma nekkoon wala hip hop bi nga xamante ni man dama ci nekk yàgg rêvé pour bokk ci nit ñi nga xam dañ koy jëlee plan x yóbbu ko plan z su fekkee ni sama album narul def loolu pour hip hop sénégalais narul def loolu pour ci ngaa Ngaaka Blindé yàlla bu mu am yàlla bu ma ko def quoi parce que gisuma benn sens def album juste pour bëgg def album fu artiste sénégalais peut-être di teg tànkam maa fay teg sama tànk li ma bëgg mooy suma ma demee bay def album mu leer que ma ni album bi waxuma la sax ay hip hop wala musique sénégalaise quoi mais dina nekk fierté sénégalais yëpp dama cee am mbébét dama cee am objectif ci double album bi may génne mm-hmm. peut-être eggaguñ ci mais buñ ci eggee tamit incha allah rabbi nañu yàlla may kàttan yàlla may ñu gëm-gëm ak possibilité ba objectif bi ñu visé si double album bi ñu atteindre ko. kon mën nañ xaar ngaa ko bële double album international lay génne. ni nga waxee ah nii ah oui c' est évident. c' est évident loolu c' forcé quoi c' est évident defuñu double album pour pour le marché pour le marché sénégalais suñuy def double album primo. Mhm. c' est pour que affaire bi propulsé wu sur le plan international après. après après sur le plan international am na yeneen objectif yoo xamante ni peut-être visé nañ ko et bu loolu bu demee ba jege si waxuñu sax sorti album bi en mhm. mais après 13 décembre nit ñi dinañ gis ban liggéey la Ngaaka Blindé di liggéey mhm. dinañ ko wan nit ñi en temps et en heure ci évolution bi nga xamante ni liggéeyu album boobu mi ngi koy évolué incha allah Sénégal yëpp dinañ ko gis ba keroog album bi di génn. am na solo mooy damay dellu ci ginnaaw doole ji bëri day wàññi xel Ngaaka Blindé doole ji bëri day wàññi xel wax boobu man damay toog di ko xalaat jaaxal na ma trop loolu mooy lan lan la ba pare clip bi mooy li ma la waxoon rek clip bi nga def ko ba gars yi naan Ngaaka Blindé bi faramason la nu mu demee noonu nga tourné waat na doole ji bëri day wàññi xel booy temps sa wax yi Ngaaka mu demee noonu. <laughs> waaw waaw bon cest à la la musique hip-hop c'est une musique qui parle de tout et de rien quoi am nañ possibilité wax ci lépp c'est-à-dire hip-hop mun na sol casquette ilimaanu jàkka mun na sol casquette genre euh, pape bu nekk ci église mun na sol casquette agresseur bu nekk ci mbedd bi mm-hmm. que mun na sol sol sol casquette étudiant bu nekk université mm-hmm. hip hop mun na sol casquette nit ku gëm yàlla que hip hop mun na sol casquette nit bu gëmul yàlla mm-hmm. hip comme on dit en anglais benn overcrossing music la am nañ possibilité genre jël ci facette yëpp yi nga xamante ni am na ko ñu tey ñu def ko ci hip hop et n'oublie pas nekk ñu ci benn ci benn na euh, euh, euh, laa kii mun waxee nekkuñ si benn compétition de génération mais dañoo nekk si benn continuité mhm. c'est-à-dire li may wax li PBS xeex li daara ji xeex li Fou Malade xeex cinquième underground xeex ko mhm. tey ñun même chemin boobu la ñuy nekk di continuer mhm. et sooy xool yi ñu doon wax ci ay jamono di Rapadio doon wax ci ci ay ci ay musique am li cinquième underground doon wax li awar yi doon wax ba tey dara changé wul peut-être façon yi moo changé ak génération bu bees bi genre façon de musique bi façon de rap bi kese mooy changé mais même même cause yi la ñuy nekk di défendre mhm. doole ju bëri day wàññi xel jarul ñu si cherché de midi a 14 heures dama koy wax sax di ko mbala gi mbëri dina genre boo xoolee mbëri ñu si gën a bëri bëri doole ñoo si gën a ñàkk xel da ngay dox nga gis sama mbëri koñ yi des fois da ngay dajante ak ñoom sax ñu jël la ci suuf xam nga yanu la dóor la. Mhm. xam nga des ñu gaañ la te juste ko pour dara quoi. gis nañ temps yi Dip génnee benn album. Ngaaka Blindé ñu si bëri naan Dip da ci sànni pic Ngaaka jàppal bàyyil ba Ngaaka def benn teaser sànni ko ci YouTube bi di waajal moom it benn kilip gaa jàpp ne Ngaaka albumu Dip bee tax mu def clip bi. ci pop la bokk. la bokk tey dugal nga benn vidéo mu am ay pic. ci la bokk. lu waral titre sound bi nga génnee tey titre bi dafa yéemu. terrain teelal ma sa affaire de bandi la fala bandi di dajaloo ku gën a bandi sa morom rek da koy wane. war nga mën a wax Ngaaka Blindé dëkk koñu Khalifa Sall moo la ngay sàcc man ci ay ministre laa yore moom loolu. loolu loolu. ça c'est les punchlines ça fait partie du hip lu tax punchline bi nga taamoo ko Grand Yoff. <laughs> parce que peut-être bon pour lan mu nekk pour lan mu war nekk. Euh, je sais pas pour lan nga bëgg jël ko yóbbu ko Grand Yoff. non parce que yow yaa tudd Khalifa Sall sa Grand Yoff la dëkk. waa <laughs> en fait tout ça ça fait partie du hip hop mun a c'est-à-dire quand on peut chercher plus loin pour voilà nit ñi mën a creuser seen xel pour comprendre il parle de quoi xam nga lii ni attaque bi fan la jëm fan la ko yóbbu. dafa mel ni ngaa ko balande lu mu daan nëbb ay temps léegi da ko da ko bàyyi fële quoi tey jaar léegi ci digg bi. wax naa ko depuis ma sortie waxoon naa leen ko nekkatuma ci. ci peut-être waa bàyyi mu sedd bàyyi mu jàll soo ma waxee benn dama lay wax fukk soo ma ci xuloo dama la woo ci xeex. et voilà. am na solo mais mais pour ñuy waaj a tëj émission bi ñu ngi koy waaj a mais avant ñu koy tëj rek Ngaaka Blindé nee na 2020 la album moom di génn pourquoi pas defoo ko pour guerre bi gën a saf mondial. <laughs> en fait bi guerre bi du si ay. album sa digganteeg Dip la gaa ngi koy jot bu baax a baax. mais ça fait partie du hip hop. si la bokk. waaw donc amul amul ay ay c'est pas amul ay ay cherché muy deux de dix neuf wala deux mille vingt man mosuma génne album et puis ya y a combien yu génne combien d'album et puis ba léegi ngaa ko bële mu ngi existé aujourd'hui mun a wax ñaari rappeur wala ñett si hip hop sénégalais ko wax. la nuit des avocats. oui la nuit des avocats primo genre à la base avocats yi nga xamante ni ñëpp dañoo nekkoon di plaider di plaider Ngaaka Blindé. Mhm. joxe si seen énergie ñu si bëri nag mun naa ne xaaruñu si woon cent franc mhm. ñi ay ñu ay artistes jël lañ ñu ñëw euh, di défendre dossier bi mhm. ñenn ñi ñu ay samay frères samay nit xam nga jël la ñu ñëw di défendre dossier bi mhm. bu ñu génnee tamit mu nekk fierté ci ñoom ñun tamit dañu am benn reconnaissance bu ñu leen waral et du coup je me ku ci nekk ci li nga am nga mën a delloo nit nit ñu njukkal man hip hop laa am show laa am ma jël 13 décembre bi nga xamante ni dafay considéré ak jour ñoom bi ñu taxawoon di de ñu jox leen ko pour delloo leen jukkal pour wan carrément que ñun aussi am nañ benn fierté ak benn contentement ci lu ñu wane mais du ñoom kese du avocat yi nga xamante ni ñoom dañuy sol euh, seen robe avocat ñëw plaider mm-hmm. mais la nuit des avocats c'est la nuit de tous les sénégalais mm-hmm. parce que ci problème Ngaaka Blindé sénégalais yëpp soloon mbubu avocat mm-hmm. di ko plaideel di jël défense am donc tey 13 décembre bi dañ ko jël non seulement pour les avocats yi nga xam ne ñoo nekkoon di plaideel Ngaaka mais pour tous les sénégalais yi nga xamante ni am na koo xam ne benn bis sax jël na kurusam wala tàllal na loxo yàlla ñaan ko ne ko ngaa leen blende yàlla na génn fu mu nekk. am na solo liñ la laaj li nga bëggoon ñu laaj la ko sa laaj ñu la ko émission bi mat na. waaw rafet na je pense que voilà xaw nañ tënk lépp. di leen jaajëfal di leen remercier waat ci opportunité bi. parce que dañ koy soxla pour public bi xam suñu état d'esprit ak fu ñu toll ci liggéey bi donc maa ngi jaajëfal ñi nga xamante ni ñëpp ñu ko la